asalaamaaleykum si internet yu Dakar mi di gannaaw ba leen nuyoo di leen siyaaraat di leen jox seen wàcc wàccuwaay kenn ku si ne tey nag ki ma dalal tamit duñ leen ko présenté si mim réew su waxee ngeen dégg ko waaye tamit su jëfee tamit ngeen gis ko tey lu ma musul gis si moom la ma euh, lu ma gisul musul gis si moom laa gis tey tey daf ñoo yóbbu géej tuur tuur li nga xam ne man laaj ko seex lii la la mën a daa am lu war a xew si dëkk bi lu xew si dëkk nag moom moom ak yàlla rek xam moo tax tey mu xëy génn tuur toj na nan mais nañ waxtaan si lu bëri mais xam nga jamono ji weesu diggante Modou Lo Ama Baldé dégg ngeen nu mu si waxoon mais nañ siy jaaraat tuuti di ak jëmaat li nga xam mooy dimanche bii di ñëw diggante Tapha Tine ak ki nga xam mooy Eumeu Sène le 19 tamit gis nañ ci ki nga xam mooy Lac de Guiers ak ki nga xam mooy Lac de Guiers Lac de Guiers ak ki nga xam ne mooy euh, Siteu ñu war a lu bëri bëri Cheikh bi ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu baax ñu ngi ziar ñëpp ziar kilifa diine ziar Sénégal mën lu ante ñëpp. ñëpp ñu leen di ziar ñëpp Seydina Limaamu waaw rasulullah yonente bi ñu ngi ziar ñëpp Sénégal gépp waaw yow moom boo ma seetsee moom damay soxal pour wax si parce que gars yi dañuy bëgg sax dafa am man émission mais day fekk ma équipé parce que man waaw te li may nelaw du bari waaw moo tax te yow moom mënu ma la bañal moo tax soo ma contacté rek man damay damay waaw damay ñëw damay ñëw defal ñëpp yow moom mënu ma laa bañal quoi mënu ma mënu ma laa bañal yow moom loo bëgg rek dama si dama siy sawar a jàpp waaw si kàttan suñ borom moo tax combat Balde Ama Ama Balde Modou Lo bi ma doon wax noonu xam nga làmb jo defoon nañ émission man maa njëkk a def émission ne Modou day daan mais boo gisee itam li tax ma def émission ne ne Ama Balde day daan parce que gars yi dañ tàmma di yàq combat mooy daan gars yi nag dañ tàmma di def loolu loolu nag moo taxoon ma def vidéo boobu mais après si jour combat bi owaat naa la téléphone ma oo la téléphone bi may tuur noonu man la saay combat bi changé na de ma owaat beneen beneen émission owaat naa ko émission moon siwal ko ne la saa combat bi changé nga def ëppaleur ñëpp di dégg ñëpp ma ne la combat bi changé na man maa njëkk a taxaw def vidéo ne Modou mooy daan mooy daan Ama Baldé man Cheikh maa njëkk a wax loolu man Cheikh borom kiraama yi borom lax dëri man du ma wax luy dañ te loo ma loo ma laaj nag damay sor pour tontu la si loolu instant yii maa ngi lay déglu nag. waaw Cheikh ñu ñëw tuuti gis nañ ni nga xam ne mooy combat Modou amaa Ama gis ki nga xam ne mooy Modou Lo andul benn galaaj gis Ama Baldé doon sotteeku loolu xar fa xuufa la wala lu mu fa demee noonu ndax man ñu ñëw seetaan sax ñu ngi ma doon woon ne sa maara lu mu waxoon lépp lu mu lu mu waxoon lépp gis nañ ko non mais lamba jooj li ma la wax loolu la Modou Lo bu ñëwee lamba ji suufi jàmmalaay lay indi te Modou Lo jàmmalaay Modou Lo jàmmalaay 1h la fa gi ñu woon jàmmalaay foofu lañ newoon benn ak benn kilifa fa lañ doon liggéey si guddi gi su soos noonu suufi jàmmalaay la may la Modou Lo du indi gàllaaj du indi dara Modou Lo ndox mu leer la indi si lay liggéey parce que Modou Lo instant bi nii day li mu daan li mu daan liggéey li mu daan liggéey fiti si mu daan liggéey instant yi Modou Lo loolu lay réccu moo tax Modou Lo instant bi ni day liggéey si lu set waaw instant yi day liggéey lu set te Modou tamit instant yi ni mu daan Ama Baldé xam nga Ama Baldé tamit encourage waaw encourage loolu foog mu waxtaan si foog mu waxtaan si mais amaa Baldé tey ñoom waroon nañu bañ a jël jël jël làmba jëpp concentré wu Ama Baldé si gàll te Ama dafa sonn Ama Ama dafa daj lu ne. gis nañ waa ñu bëri génn ñu ne. am na ñoo xam ne Pikine lañ dëkk def si li nga xam ne mooy combat si combat Ama Baldé Modou Lo maanaam am na ñoo xam ne dañ def pour yàqal Ama Baldé Ama Baldé daan bañ a andi bi ba ba Pikine. non Ama boo gisee Ama Baldé Ama Baldé gars ñoo ko yàqal te maa ngi lay wax nag dara de gis nga ñoom ñooñu nekk foofu di yàq bu ñu yaakaar ne roi des arènes bi mën na dem Pikine ñu ngi nax seen bopp. nga ne ma. ñoom ñii di yàqanoon def ay def-def suñu yaakaar roi des arènes mën na dem Pikine ñu ngi nax seen bopp roi des arènes bi bi kii ko war a jël si Modou Lo bu fekkee Modou Lo bëréew lax moom kii ko war a jël ku njool lay doon ko am taxawaay te kaw dañ ko samp laa ilaaha illallaah see waxati nga de déggoo li ma la kii war a jël roi des arènes kooku instant dañ ko samp bu fekkee Modou Lo bëri nax moom bu fekkee bëri nax moom si kattan suñ borom kooku mooy jël roi des arènes baa ki bu fekkee bëri ñu nag Modou Lo mën na organiser benn tournoi teg roi des arènes mais ñoom ñii di ñoom di def ay def-def di fexe di def def defa def def Ama Baldé ban yaakaar ne instant mën na jël roi des arènes nax seen bopp te le premier janvier dinañ toogaat fii li ma seet si le deux nga ne ma Cheikh waxoon naka mais ku njool kooku nga wax man kenn laa gis ku njool kii si arène bi mooy Tafatine war a jàkkaar ki nga xam mooy Eumeu Sène combat jooju. te kooku instant yii dañ ko sàmba te waxam bariwul soo gisee kon gars yi dañuy génn di wax du ne sax di wax du dépassé wu bari foo foo gisee rek yaa ngi ko fekk mu toog def càll ay ay waxam bariwul. waxati nga de. ay waxam bariwul te te lu lu mu nar a wax lu mu nar a wax da koy bëri. Cheikh yaa ngi VAR ndax yow ba la jëlee ba léegi mosoo am VAR li nga wax gis naa ko li ngay def teg naa si bët mais Tapha Tine làmb jooju la ñëpp di ja làmb jooju la ñëpp di di xaar te soo waxee da koy dégg te soo defee tamit da nga koy boobu nan la nar a demee. non làmb jooju moom mooy li ma la mën a wax rek làmb jooju noonu noonu si xeex si xeex lay jeexee. kan daal si xeex lay jeexee mën naa la ñamal lool dinañ xeex moom dinañ xeex mais si xeex lay jeexee. mais mais mais mais. taj taj nañ taj nañ dem ardo ñëwaat. kii di daan ngembaam sax day am bula. taj ngembaam day am bula taj dina takk dina dina am benn morsa bu mu takk si boppam. la illallah jantal maara. man du ma wax luy dañ man la seex borom kiraamay borom lax dëri sëñ bamba moo ne bismillah yombal luwaay bi laa mën aay walanti xaay xam dal li rabi xewn rabi dara ma xalu bi lax ti daay xam nga sant yaa ma fekk géej may yaa géej may turu te instant bi jamono ji ni géej gi dafa yënga trop te su ma sañoon instant bi ñu dem Espagne nañ arrêté nañ arrêté instant bi géej gi baaxul te mooy li ma la doon waxoon fan yi géej gi li ma la waxoon fan yi géej gi ay problème dina fi am mooy li ma la waxoon fan yi bii paas ne ay problème day am mooy si géeju géeju géeju géeju yaa ngi dégg démb li ma la waxoon ne ay décès dina mooy géeju bari ni nga dégg dañ décédé waxuma la kon bii paas waxoon nga ma ko de man du ma wax luy dañ instant bii nag nañ bàyyi géej gi instant bii ni géej gi baaxul man mi bëggoon dem nag non bul dem de yow du ma seetaan ngay dem yow kañ fu sëñ bi dem da ngay dem yow may ànd ak yow ba Coupe d'Afrique may liggéey te am na benn maaraam ma dégg tamuy kolu rek tamu yor lii bi tamu yor kan bi mu ne Sénégal instant yii nii Coupe d'Afrique bi naara ñoo ko parce que naara ñu ngi ko liggéey liggéey bi ñu ngi ko def si nagu ñuul li mu amul Sénégal jamono jii moom man si Afrique. ah Cheikh. Cheikh ki nga wax moom. ba wala ma bañ a tudd tur. wala yow ma tudd tuddal turam tuddal turam man ragaloo tuddal turam. instant bi nag lii tax mu génn vidéo boobu def ko parce que combat mu combat mu la ma bal ñu dem liggéey dem jëlal Sénégal ndam ñëw. Sénégal jamono ji biddéem dafa tàkk si Coupe d'Afrique waxuma Coupe du monde mais jamono ji ñu toll ni Sénégal instant ay biddéem daa tàkk Sénégal jamono ji lu ne da jël. Cheikh waxati nga mais nañu bëgg dugg li nga xam ne mooy combat Eumeu Sène Tapha Tine ndax ñu bëri nee nañ Eumeu amul sens tafaatin dañ ko samp da nga gis sax ba si open press yi wala li nga xam ne mooy si làmb ji taxawaayu tafaatin ak làmb jooju li nga xam ne mooy wàllu mystique nan la fa nar demee. mais làmb ji tëb carrément daal làmb ji nañ def attention bu baax nañ def attention bu baax waaw nañ def attention bu baax xam nga gars yi itam ñoom ñëpp ñu ngi toog yaakaar ne làmb yaakaar ne làmb jooju day jékki saa yomba làmb jooju mën na ba ne yomba de làmb jooju làmb ju yomba xam nga ñoom ñoom ñu ngi jël ñoom ñoom ñu ngi jël verdict ñoom seen maaraayam ñu ngi jël verdict jox ko jox ko tafaatin hmm. ñoom ñëpp tafaatin nañ ko jox hmm. làmba jooju doon loo xam ne luy yomb hmm. boo amul boo am làmba jooju ñoom boo am dinañ def benn arrêt sax ñëwaat genre ju jaxasoo lay doon ñu owaat leen làmba jooju làmba jooju doon lu yomb ku yaakaar nag làmba jooju day yomb la ngay def lu yomb yaa ngi nax sa bopp làmba jooju du doon lu yomb maa lay wax lu garaaw te ñoom ñaar ñëpp ku si ne dem nga fi nga war a dem Tafatin moom samp bi ngay wax noonu bi ma la koy wax du tey Tafatin dañ ko samp. ñoo gis si combat boobu ndax gaa yëpp lan la ñuy xaar ndax Cheikh soo waxee ne diwooy daan gaa yi lañuy yàqanti woo la ndax jur ba nga ne Modou Lo mooy daan ñu ma woo sax mujj dama mujjee fay sama portable. lamba jooju instant bi am na loo xam ne bëgguma la ko wax mais foog mu wax instant bi nii sarax bii nii bii sarax bi ma lay wax nii sarax bii nii bu ma ëmb seen ooyee day ñàkk de na moo woo téléphone. waa Pikine déglu leen lii seex borom kiraama yi borom kaas yi moom su waxee gaa yi dañ koy déglu waaye tamit su jëfee gaa yi dañ seetaan nee na waa Pikine sarax si. xam nga sarax bi ma doon wax sarax boobu ma doon wax si Modou Lo Modou Lo Ama Baldé xam nga biñ xëyee si guddi la ma papis oo oh, papis def sarax bi mooy nag wu ñuul woo noonu mu def ko rey ka sarax saraxi ka mooy Modou si la daan si la daan Ama Baldé man nag nañ bàyyi bañ ne dañuy bàyyi bañ ne suba làmbañ bu ñu nee suba la làmb ñu ne ko commencé au téléphone ñi ne États-Unis ñi ne Allemagne commencé au téléphone wala ñoom waa Pikine commencé au téléphone di ma laaj sarax bi du la jël wax naa nag lu leer commencé laaj nag tey nag ma nag ma au téléphone ajjuma ajjuma daal laa la a wax sarax bi mais à part ajjuma commencé owaat di ma wax sarax bi du la ko wax. dégg ngeen. seer na seerul. ah non wax luy dañ. dégg ngeen yi nga xam ne mooy seex euh, borom kiraama yi lu mu waxati diggante. Euh, Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Tapha dégg nga sarax yu mu wax moom la Eumeu Sène war a génne su ko génnewul maanaam musiba naka dal est-ce que yaakaaroo ne ki nga xam ne waaw Pikine teg li nga xam ne ma ñaar defet ten doom génn ki Ama Baldé Modou Lô daan ko Eumeu Sène nar a génnaat dimanche jii ñu ne mais saraf saraf saraf saraf saraf bi buñ ko deful bu ñu deful saraf bi bu buñ deful saraf bi dañ amaan defet de man Cheikh maa la wax loolu almaxtum man lu ma wax luy dañ man kenn du ma vaar parce que man ragaluma vaar te man lu may wax man lu ma wax man seex dama koy segga bu baax pour wax parce que ñun rawaan bi ñu àndal li ñu àndal loolu moo ñuy wan ñu siy dimbali ya jaam yàlla di si dimbali ñëpp ñu ootee ba léegi biñ ootee ba léegi masuñoo triande kenn kuñ mas bu ñu buñ séqa yow teraanga wala buñ la liggéey da nga koy gis yow façon nit ku ne danga may oot boole maa moom dama saay liggéeyal ma mais biñ ootee ba léegi si kàttan suñu borom nit ñi ma sa liggéeyal ñu ngi koy gis te lépp ñu ngi ko teg si yàlla te ñun li nekk suñun suñ borom moo ngi ko def newuñu fii di ngan danganal kon gars yi di jël gars yi di enquête seen xëy di leen dóor di leen triande ñun suñu xam-xam xooluñu si loolu dañ bëgg a taxaw pour dimbali jaam yàlla bu baax élection yi nag yi di ñëw nañ def attention bu baax nañ def bu baax dëkk bi nag dina yëngatu trop nañ def yi ba élection yi nañ si def attention nañ bu baax ñu génn di génn ñu ñëw tuuti wax nga si comme Eumeu ma ak ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine mais Siteu Gouye Gui Siteu ki nga xam ne mooy Lac de combat bi la ñëpp di xaar le 19 wala lañ si def kot wala wala su ñëwee nga nga waxaat. non si talal da moom làmba jooju moom dina doon làmba ju metti lay doon làmba ju metti te làmba gis naa si làmba ju metti làmba ju metti gis naa ko si moom te làmba moom kii di daan moom làmba ji ku am taxawaay lay doon ku am taxawaay waaw te làmba dama si dama xaw a gis lu xaw a jaxasoo dama si xaw a gis lu xaw a jaxasoo si làmba ji parce que doo si def cote euh, bañ euh, euh, semaine bii di ñëw comme cote tafaatin Eumeu Sène lañ jublu mais bi ñu ñëwaatee nga wax si ki nga xam mooy Siteu la de Guiers. dinaa def cote dama si def cote ba semaine bii ñëw buñ paree si làmb jooju buñ paree si làmb jooju boo ma seet sawaatee après boo ma seet sawaatee ma doog a wasi loolu noonu ma doog wasi mais fi ma teggoon suma tànk ba léegi teggu ma ko baraada boobu dinaa taari sar teg ko si lal bi nga jënd wal nga suukar ma wax ak jinne yi ñu xiim ma jox la nga naan. man Cheikh maa loolu almaxtum almaxtum sa kàddu gu mujj moo doonoon la non su ma kàddu su ma kàddu gu mujj moom su ma gu mujj moo doonoon moo doonoon moo doonoon lenn lenn doonoon sénégalais yi ñoom ñëpp gars yi maa ngi ni gërëm ñoom ñëpp ku si nekk ñoom ñëpp maa ngi gërëm maa ngi ziar sénégalais yi waaw dëkk bi daal nañ oote jàmm parce que jàmm doon na loo xam ne lu baax la si dëkk jàmm doon na loo xam ne lu am la parce que instant bii ni wax ci bari na trop trop trop trop ñëpp ñu ngi yor seen làmb ñëpp di wax ñëpp di wax ñëpp ñu ngi wax nañ oote jàmm yaa malikal mun kiyaa bisimilah yëmallaa bi laa manaay walanti xaay xam dara xerdam xadaraxal bés ci daal law sukkur bi laa ko fur lakka daa laka samaay yaa man ajaab xaddi xitaab law nataab san daab allah bari na ataaya laa bëgg ataaya laa bëgg ataaya neel yaa malikal mun kiyaa 2000 yaa malikal mun kiyaa 2000 ay li de mosuma koo gis ngi nii bees tax ay lii moom mosuma koo gis sama cadreur sama cadreur lii mosuma koo gis waxal ñu génne deux mille ah. bees tax mu ngi nii xoolal bees tax su ma ko su ma ko su ma ko xottiwul mën na demaat bees tax daa ma ket ka jox la nga jënd war ngaa suukar laa mu ngi nii Cheikh yëkkati na deux jox ma ko laa ilaa xaasi lu xus maa koy doog a gis ay jinne la yor de loo wax di gëm naa ko moom lañ yor ni liñ yor dafa óor liñ yor new ni si naw ni fii liñ yor di si nax gaay di dóor gaay dañ yor lu óor ba pare lu ñu yor mu lu ñu yor mu nekk ndono nekk suñuy maam nekk suñuy maam ñu siy liggéey yow man dama daan taxaw dama daan toog sa di laaxatu mais yaa ne ma seex man bëri na ay maaraayu may jël man xam naa ne xamuñu dara yaa man fupp ñëw na fi nga defal ma kiraam defal may kaas man man li ma mën si kiraam moo ëpp chaque jour ma wax man li ma mën si kiraam moo ëpp gars yi dañ jàpp kaas yi rek fooy balance yi dama koy jël di nga def ay 10 000 10 émission bii di ñëw man yàgg naa def loolu seex man la seex borom laxdëri borom kiraama yi maa ngi oo nag maa ngi oo nag Ndiaye fils borom poisson yi borom jën yi oo Bamba man ngi koy Barxaama Ñas oo sama gars yi Birigui Diagne ñoom Rasul Ligzo borom iPhone maa ngi oo ñëpp Sénégal ñëpp suma produit ay Moustapha oo ñëpp Fallou Fallou Fallou Café maa ngi koy oo maa ngi oo ñëpp waaw oo ay Moustapha Naam ñoom Bamba Dieng ñoom Pa Matar Sarr ñëpp maa leen oo maa ngi oo ñëpp Mamadou Fall maa ngi oo Sénégal gars ñëpp maa leen oo di oo suma copain kenn du moom moo géré moo mën moo pa doole mu ngi nii kenn du moom kenn du sa waaj yi sa waay ngi kenn du moom mooy moom lépp lépp moom la maam gànna lépp moom la maam gànna borom yoof cey maam gànna maam gànnaa ngi nii gànna mesere yaa mën yaa ëpp doole te a féete xale acca sama gars yi waaw waaw Birige rasul borom yëre yi borom dàll yi di oo taay suma bi kenn du moom taay mooy wat sëñ bi chaque jour waaw gis ngeen ah, mbooloo mi bu ngeen dégloo li nga xam mooy ah, la cheikh borom kiraama yi wax ak cheikh borom kaas tey Maka mu génne dafa luxus li nga xam ne mooy deux mille jël deux mille yëkkati teg ko sama loxo tamit dégg ngeen li mu waxoon si combat Modou Lo Ama Baldé ngeen li mu si wax dégg ngeen tamit bi nga xam ne ba Modou Lo woo naa ko dégg ngeen tamit li mu si firndewaat combat lañ jëm muy combat Tafatine ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène dégg ngeen lu mu si wax dégg ngeen tamit mu wax ñi nga xam ne ñooy ànd ak waa Eumeu Sène ne leen sarax bi ngeen di génne balaa làmb nee na ko wóol fii balaa vendredi moom maanaam instant yi takka tafaati mu ñuy wax gën sa xam taksirib moom moo jekku. sama numéro 78 la 136 23 71 numéro bi 78 136 23 71 waaw ku ma si oo nag nanga ma si oo boo ma si ooyee dinaa la wax sarax bi si kàttan suñu borom. kon ñoo leen di jaajëfal di nuyu Fallou borom café te muy tamit euh, ki nga xam mooy Kia. Aljaas su ma cek-cek bi Aljaas maa ngi koy baax su ma cek-cek bi Poco kenn du moom lu ma bind rek si xaati mu Ah, di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Kia borom eh, eh, Kia Shop di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu dëkk Yoff di siyaaraat ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon ak waa Dakar Midi ak Seex borom kiraama yi jërëjëf. jërë ngeen kuy wër ku yàlla baaxal wala ku yàlla may ba ñëw ci nga xamante ni mooy seex Mara mën ngaa taxaw te xam ni kii ku yàlla baaxal la ku yàlla may la du samay kàddu waa réew mi ko wax ndax ku mu mas a xoolal wala mu wax la teg nga si sa bët ba ci man ki dem boo njaay yi la ma wax ci combat amaa Baldé ak Modou li ma waxoon yëpp eh, teg naa si sama bët am na lu ma deey tamit si combat bi nga xamante ne nii mooy Eumeu Sène ak Tapha Tine bii la combat lu ma la ci wax takk ko téere ndax Cheikh Maraw ngi borom jinne yi borom kiraama yi borom léppaa ngi nii na sa jàmm yàgg. Ah, ba tey ñu wax leen ne leen émission bi dakaar Dakar di moo ko def Dakar Midi jàngeen jëf seen liggéey rafet na waaye Cheikh Maraw mi ku topp topp ku jar topp man de yow laay topp. jàpp ba fajar ma dem tëddi na sa jàmm yàgg